suñu benn mbokk pël boo xam ne actuellement ca Daara Jolof xam ngeen nag yaa ngay dee ndax nawet bi fu mu ne nii sori na te ñu ngi ca noor ba léegi la nga xam eh, <laughs> mais copain nag mais nag mais nag maala la namm mais nag depuis tam xarit mais yow nag temps yi yow nag temps yi nag mooy romb dooma sax nuyu yow dama doon romb côté Liberté 6 di la romb ci àll àll bi nekk ci autoroute bi mais nag dama lay nuyu nga fas sa kanam ah te maa ngi yow ñoo dëkk Daara Jolof ah yow yow région Sénégal yëpp Daara Jolof nga ëpp ci li ngay nekk yow sama waay nga yow nag sama copain nga yow nag sama mbokk nga déedéet sama dëkkandoo nga léegi kaay. salaamaaleykum. min ko Samba Dembel Ka. grand berger à Dar Jolof Lumpul Pël Barkedji. ay eh, min. maa ngi waat ne Ablaye Wade ak Macky Sall yëpp laay wakkal ndax ngarale njaaka naay lay tëddee bu dee ndey ji seet nga waaye ñaar ñaar ay ay bu dee borom ñaar jabar njaaka naay nga war a tëddee man duma seex am na ñaar jabar kon njaaka naay lay tëddee rakki mu ngi fi ak eh, Fatoumata kon damay tëddee njaaka naay Ablaye Wade Macky Sall laay waxal de yéen ngi caakaan suñu nag yaa ngi dee benn par benn ndax dëkk bi wow na kor lekk amatu fi forage yi yàqu na suñu jabar yi suñu doom yi dañuy yeew quatre heures du matin di dem ba ci àll bi pour uti ndox suñu béy yi suñu nag yi amatul soow e ñu ngi commencé tumuranke seen programme yi ngeen di programme di ko wax ci télé yi mosuñu ci dégg ngeen ne sàmmkat yi nekk Lumpul Pël Daara Jolof Bar Kejj Kas Kas Dingiraal Ngiji Loñ yooyu yëpp da ngeen koy bàyyi yéen a ngi wax autoroute péage bi yéen a ngi wax seen affaire programme eh, programme affaire eh, yooyu tappale la li ñu bëgg mooy ñun ñii nga xam ne ñun ñooy jaay nag suñu nag yaa ngi dee ngeen fekk ko Ablaye Wade eh, nawet bii passé baakul fii ci Daara Jolof tawul lu mu taw yëpp eh, daar jolof suuf si moo wow su ko tawee mu naan ko su ko tawee mu naan du doyal parce que dafa soxla dafa soxla su eh, ndog bi moom Ablaye Wade lu teg mu bombardé Gunaas ci asamaan Gunaas bi bi nekk Dakar foofu Gunaas Medina Gunaas dafa taw ba ni ñi bu ñu génn dañuy xuus si biir pourquoi moom mu bombardé eh, asamaanu Pikine ak ginnaaw raay ak géejawaay wax naan ci kaw foofu mu ngi taw ba ñu am mbënd moom mu ngi bombardé eh, eh, eh, asamaanu Dakar jàpp côté côté Wakindaan Malika yëmbal foofu yëpp mu ngi am mbënd ñun du tax du bombardé asamaanu Daar Jolof bi loolu dafa jot pour mu bombardé ko pour ndox mi ñëw parce que bu buggee bombardé ndox ñëw mën na may wax nag xaw ma dañu wax ne bato costé bato dem xaw ma nag bato bii dafay dem bi costé war a costé wul waaye billaay wallaay taala yéen a ñuy kepp ñun pël yi nekk fii ci Sénégal boo ñu koolee berze yi ëpp nañu six mille six cent cinquante quatre berze dañuy dundal ay nag yoo xam ne ëpp na million millions jàpp trois millions nag yéen ndakaaru njaay boole lekkee sawarma ginnaaw yàlla ñun la ndax yàpp sawarma ci nag lañ koy jële boo naane naanee foo eh, bi eh, eh, nag bi ñun la fromage bii ngeen di lekk ñun ñoo koy jokke suñu naaj yi ngeen nekk foofu rek di nekk seen ndaataa talaki ñun ñu nekk ci ay coono duñu ko nangu leen raa leen di xamal ñu ngi xamal ñaari candidat yii ku ci falu na nga bombardé asamaanu daara jolof fi pour mu mun a taw comme que bombardement asamaan mooy tax léegi mu taw te moom ngeen kewal ngeen def ko waxuma ngeen def ko nag bo mu mel ne mbënd de am ngeen kam-kam bi kam naa seen ay pexe attan ngeen ko door dooraat ko mu bënd su ko defee nit ñi bu ñu xëyee ci waxu mbënd nañu wax du ñu wax waxu dund te ñun bugguñu boobu kam nañu bi ñu bëgg kam ngeen ko c'est le renforcement de tous les programmes yu ñëw fii ku ko fi deful nag boo takawee fii ci Daara Jolof bugguñu wotel billaay duñ wotel ndax sonn nañu dee nañu tas nañu ñun Daara Jolof nañu am Linguère Barkéji nañu am pourquoi asamaan si bu ñëwee ba Louga lumpul pol rek mu takaw Ross Béthio taw na Daara Linguère taw na ah Lumpul eh, Njambur taw na Ndande taw na pourquoi Daara Jolof mënul taw acca ne ko ñëw nag mu bombardé asamaan si balaa ñuy dem ci élection yi bëgg nañ balaa ñaari fan fii mu nekk nii ci Daara Jolof mu taw su ko mënee mu def ko Macky Sall bu ko mënee tamit na ñoo bombardé asamaan ku indi taw fii rek budul yàlla bi yow dinañ la jàmbar ay ca bombardé leen ko ay <laughs> man Daara.